dellusi si fas yéene waxtaan tey ci eh, thème bu am solo mu di fatihatul kitab mu di saar bu am solo ami ngëneel am njariñ yu jéggi dayo ñu bëgg ci waxtaan rek tey suñu kemtalaay xam-xam ndax ngëneeli fatiha kenn mënu ko jeexal mu mel ni ci ajuma ji ñu génn ñu ngi doon waxtaan ci ayatul kursi wax itam lenn ci ay ngëneelam te li nu bàyyi ëpp lool li ñu fi wax euh, mu mel ni nag tey dañu ñëw rek pour fas yéene waxtaan ci fatihatul kitab bu ñu waxee nag ne ayatul kursi moo di aaya bi gën ci aaya yi et danañu wax ne itam fatihatul kitab moo di saar bi gën ci saar yi kon saar bi gën ci saar yi moo di faatixatul kitaab am na ñu ne sax suuratul baqara la waaye bii moo ëpp bii daal moo ëpp ñu wax ne faatixatul kitaab mooy saar bi gën ci saar yi ñu ne unzilat haadihi suura bi makka yowma aljumaa karaamatan أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان معها سبعة آلاف ملك حين نزل بها جبريل عليه السلام ولم يعطها أحد qablahu ñu wàcc màkk ci bisu ajjuma mu nekk teraanga boo xam ne yàlla moo ko terale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te neneen bi bi di wàcc si ànd naag lu tolloog juróom-ñaari junniy malaaka yoo xamante ni bi jibril di wàcc di indi saar bi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gunge nañu saar bi ànd ak jibril ñu ne nag saar bi mosul wàcc mukk ci benn yonent wala ci benn téere ci téere yi ko jiitu mosul wàcc kon mu mel ni kon ci yonent bi rek la mas a wàcc xeetu muhammad rek ñoo mas a am e, fatihatul kitab wa fi baadi al axbaar anna rasul alayhi wa kaana jaalisan maca asxaabihi yatazaakaruuna nacmaa allahi calayhim wa fanaa addunya wa baqaa alaaxira wa thawaab almu'miniina wa cadaab alkaafiriin إذ سمع صيحة من الناس وسرورا وطربا وضرب دفوف وضرب دفوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الصيحة في أهل مكة فقيل يا رسول الله haada duxulu qawaafili makka fa qaala sallallahu alayhi wa sallam fal naxruj ñu ne rot na ci lenn xabaar ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa toogoon na bis ak ay saxaabaam ñuy fàttaliku xéewalu yàlla di fàttaliku ay xéewal yoo xamante ni yàlla defal na leen ko ci wàllu wér-gi-yaram ci wàllu itam bëgg a doxi sa soxla jóg dox kook say tànk e, ci wàllu itam e, jàmm joo xamante ni am nañ ko ci seen biir kër am ko ci seen biir biir réew am ko ci seen njaboot xéewalu yàlla yooyu ñu doon waxtaane ak lislaam bi leen yàlla jox mu nekk xéewal xéewal googu nga xamante ni doon leen ko waxtaane di waxtaane itam ne àdduna bi du yàgg day jeex kër la goo xamante ni jarul dara lu dul yiw rek xaju fi di wax itam des goo xamante ni àllaaxira dana ko des ba faw di waxtaan itam ci yool boo xamante ni jullit yi danañ ko am ak mbugal moo xamante ni ëllëg yéeféer yi danañ ko am foofu nag la yonent bi dégg daal ay coow yoo xamante ni ay coow yi nit la mu mel ni e, xew la daal ak mbégte boo xamante ni nit ñaa ngi ciy bég di tëgg tabala yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax saxaaba yi mu toogaloon na leen waaw yuuxu yooyu may dégg ak coow yooyu lan la ñu ne ko daal dafa am ay caravane yoo xamante ni dañu ñëw indi marchandise jóge jóge ko Surik mu ne ah kon nanu génn seet ba xam lan la bi ñu génnee nag bi ñu ñëwee gis neen daal e caravane yaa ngi dugg si bu doon ci jamono bii la ñu ne conteneur la ay conteneur yoo xamante ni ñu ngi wàcc ñu ngi compter rek léeg-léeg rek ñu ne conteneur bii de Bani Umayya ñoo ko moom conteneur yi itam Bani Hashim ñoo ko moom conteneur yi itam Bani Adi ñoo ko moom famille bu nekk rek am nga ci ay conteneur bi ñu ko seetee daal mat na lu tolloog juróom-ñaari famille yoo xamante ni kenn ku ci nekk la nga wàccee ci marchandise bari na et yaa ngi solu e mbubb yu rafet tabaarakallaahu nekk ci àdduna ju féex te yaatu yenent bi foofu xolam xawoon na e, am tuuti daal tiis ndax ñi nga xamante ni ñoo ko gëm ànd ak moom nekk ci wetam dañu nekkoon ay fuqaraa yu ñàkk yoo xamante ni amuñu dara ñu ngi ñàkk ba lu ñu lu ñu ndekkee sax tëna leen foofu nag yonent bi wax naak boppam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naak boppam xaw a mel ni dafa wax ne daal e wax dëgg yàlla xoolal ñii nga xamante ni soxlawuñu lu dul yàlla gëmuñu ku dul yàlla faalewuñu ku dul yàlla yàlla rek la gëm te itam lu ñu ndekkee sax tëleen ñii nga xamante ay yéeféer leen gëmuñu dara lu dul àdduna xool leen tey ni nu amee àdduna ak ni leen àdduna wuyse foofu nag la yàlla yebali jibril ci saa rek la yàlla yebal jibril jibril ñëw ne ko yaa muhammad inna allaha tabaraka wa taala yaqulu lak wa laqad aataynaaka sabcan min almasaani xarama allahu ala qaari'iha sabcata abwaabi jahannam wa hiya shifaaun min kulli daa wa laysa fi lkutubi suuratun afdal minha wa ranna ibliisu bi sababiha jibril ñëw ne ko yow sang bi sama borom moom ma yónni nee na dégg na sa waxu xol mu ngi lay yëgal ne nag e juróom-ñaari famille yi nga xamante ni wàcce neen fi marchandise bu rëy mu nekk xéewal goo xamante ni yéene nga ko ñii nga xamante ni ñoom nga àndal ñu nekk ay jullit yàlla nee na jox na la lu gën conteneur yooyu te li mu la jox moo di sabul masaani te sabul masaani moom moo di faatixatul kitaab jox na la daal faatixa mu remplacer sa mbëggeel ci conteneur yooyu nga xamante ni wàccee nañ ko te itam maa lay yëgal ni ñii topp la tey ànd ak yow képp ku ci jàng faatixa ak li saar wi di gàtt-gàtt juróom-ñaari aaya rek la waaye ku jàng juróom-ñaari aaya yooyu nee na ëllëg am doo dugg safara ndax safara juróom-ñaari bunt la juróom-ñaari bunt yooyu ñu ngi koy tëje juróom-ñaari aay yi nga xamante ni ñoo nekk ci faatixa mu ne ko itam maa lay yëgal ne la boobu saafara la ñeel bépp jàngoro te maa ngi lay yëgal ne itam téere yi fi jiitu woon amul benn téere boo xamante ni rek e, e, faatixa ki sa biir am nga faatixa déedéet amuloo faatixa amuloo ngëneel bi amuloo itam lu mel ni moom mu ne te maa lay yëgal ne iblis bi fatiha wàccee jooy na am na naqar yëkkat na yuuxu na yuuxu boo xamante ni njabootam gépp jaaxle nanu ndax doole ji nga xamante ni am na ko jële nañ ci benn sëriñ bu ñuy wax mujahid radiallahu anhu mu ne iblis yuuxu na ñetti yuuxu maanaam wonku na wonku naqar ak mettit ñetti yoon mu ne na xiina lu'ina wa rann xiina bu'itha سيدنا محمد صلى الله عليه na ورنا حين أنزلت سورة الفاتحة مجاهد na إبليس wonk na wonk أكتيس ak tiis نينا yoon بكو na wonk na dégradé ko yàlla rëbbee wàccee ko ko keroog iblis am na lu ko naqari ba wonk na mu ne wonkuwaat na bi nga xamante ni yebal nen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mu mujjug jamono mu ne wonkuwaat na itam bi nga xamante ne wàccee nanu faatiha moo tax bi mu wonkoo wax ne ni jinne yépp dañu dajaloo ñëw si ci moom ndax moom bu jaaxlee rek njaboot gi wër ko ñu ne ko yaa sayyidana wa mawlaana ma asaabaka xatta saraxta misla haadihi sayx ñu ne ko yow suñu boroom yow suñu kilifa lan moo la jot ba nga yuuxu sa yuuxu bu foor bi bu fekkente ni nit ñee la tax taxa mer nit ñee la deful la naqari wax ñu ko ñu alak leen ñoom ñépp ndax doyuñu sax gàllax ndiku iblis ne leen e sama naqar du loolu sama naqar moo di yebal na nañu yonent boo xamante ni yërmandew xeet wi la yonent la boo xam ne bu wàccee daanaka li ëpp ci nit ñi àjjana la ñu jëm lu néew rek ay dugg safara mu ne loolu ma jaaxal te man sama bëgg-bëgg mu ngi ci woon fexe ba ñu bari dugg safara wala ñépp dugg safara mu ne looloo tax ma wonk mu ne itam wonkuwaat naa ndax itam wàcce nanu saar bu bari ngëneel te moo di faatixatul kitaab saar la boo xamante ni ku ko jàng yàlla araamal na sa yaram safara mu ne kon nag maa ngi leen di digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexe ba nit ñi sàggan ci jàng saar boobu ndax saar bi dafa bari ngëneel kon saar la boo xamante ni li ci nekk ci ngëneel iblis mi nga xamante ni umpalewul dara lu baax lu baax rek la xam waaye lu baax loolu bëggul doomu aadama bi jëriñoo ci dara ndax noonam la moom xam na importance su bi ba yebal na njabootam pour ñu empêcher nit ñi pour ñuy yittewoo xam e, jëfandikoo njariñ yooyu nga xamante ni mu ngi ci biir Fatiha mu mel ni nag alquran dafa bëri ay njariñ ay njariñam kenn mënu ko jeexal ba tax na itam ku sàggan ba aw xaraf nekkul ci sa dënn ci loo mën a jariñoo ci biir alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sa dënn mel na ni néeg bu ràpp mu ne inna allazi laysa fi jawfihi shay'un min alqurani kal baytil bi gis nga kër su fekkente ni kenn dëkku fa ku am sa kañe gu medd fa nga koy sànni ku am sa ganaar gu medd fa nga koy sànni ku am sa mbalit fa nga koy sànni lu bon lu nit am fa nga koy sànni fala si ndax ya di doxantoo lu nekk ci lu bon rek mën naa dugg ci néeg ba lu tax ndax néeg bi amul dara lu ko nit ki noonu itam nit ki nga xamante ni dënnam dara nekku ci ci alquran nee na nan kër googu ñàkkee sécurité nee na dënnam itam noonu lay ñàkkee sécurité kon nit ki surtout jullit bi war na xam ci alquran loo xamante ni ci lay raxase dënnam ci lay protégé itam dënnam protégé ci yaramam protégé ci tabarkallah njabootam mu mel ni kon gëneel yooyu ci biir fatiha yépp fas yéene nañ koo indi wax nañ ne itam fatihatul kitaab am na ñu ne mooy saar bi njëkk a wàcc ku mel ni Abdullah ibnu Abbas loolu la wax ak Mujahid Abdullah ibnu Abbas ak Mujahid dañ ne saar bi njëkk a wàcc ci alquran moo di iqra bismi rabbik waaye ñi ëpp ci mu mufassiruun yi dañ ne daal saar bi njëkk a wàcc mooy fatihatul kitaab ñu ne ndax jële neen ci eh, Omar ibnu Shurahbil mu ne awalu ma nazala min alquran alhamdulilahi rabbil alamin ñu ne ko lu tax mu ne li njëkk wàcc ci alquran mooy alhamdulilahi rabbil alamin ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi sallam mas na dey xadija ne ko man de dama ragal ne am na lu jaxasoog man loo xam ne daal e eh, daawuma ko yëg te léegi maa ngi koy commencé yëg xadija ne ko loolu lan la mu ne ko daal su ma weetee léeg-léeg damay dégg ay parole ay baat yuy wax yooyu wax ak man ba loolu day tax du ma bëgg wetaay damay daw mu ne ko te nga dem ci Waraqatu nu Nawfal nga waxtaan ak moom ndax mag la te borom xam-xam la te itam e, nitu yàlla la ko ragal yàlla la te itam kilifa la ci diine nasaraan yi mu dem fa waxtaan ak Waraqatu ibnu Nawfal wax ko mbir mi ni mu demee Waraqa ne ko e, bu la dalatee bul daw toogal yonent bi sallallahu alayhi wa nee na bi mu bi ma dellusee nee na bi mbir mi ñëwaatee dawuma dama toog nekk nee na Jibril moo ñëw daal di may dicté alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi diin ba saar bi jeex am na ñu ne e, looloo tax ñu ne saar boobu moo njëkk a wàcc ci alquran ñu ne nag wàcc na ñaari yoon ci màkka ak medina ñu ne wàcc na ci màkka di nga xamante ni farataal na nu julli mu ne wàcc na itam ci medina ba nga xamante ni comme jullit yi ñoom dañ daan jublu baytul maqdis mu di Jérusalem foofu leen daan jublu ci seen commencement daan julli ndax Jérusalem ci histoire barab bu sell la boo xamante ni yonent yépp ko ormal e ku daan julli foofu ngay jublu ci commencement d'islam fële ñépp daan jublu waaye nag yàlla moo joxe ndigal ne nanu jublu fële ca kaaba ga mu di xibla ga kon ñu ne fatiha wàccaat na ci Medina bi nga xamante ni yàlla digal na yonent bi pour ñu jublu xibla ñu ne fatiha am na ay tur ndax dañ ne e, dara su fekkente ni dafa tedd fokk mu bari ay tur fa inna kathrata al asma dallatun ala sharafi al musamma moo tax teddaayu fatiha moo tax mu bari ay tur ñu ne turam yi nag bari na waaye dinañ ci indi rek lenn nat ñu ne tudd na ummul kitaab tudd na itam fatihatul kitaab ñu ne tudd na fatihatul qur'an tudd na itam ummul kitaab tudd na ummul qur'an tudd na sab'ul masani tudd na alwaafiya tudd na alwaaqiya tudd na itam alkanz tudd na alkaafiya tudd na aslul quraan tudd na annuur tudd na alhamd tudd na ashukr ak yeneen ak yeneen ak yeneen mu mel ni kon e, saar la bu nga xamante ni saar bu tedd la te li ko wane teddaay gi bokk na ci tur yi nga xamante ni am na ko te mu bari lool te tur bu ci nekk rafet ni bakkan ci xar kanam ñu ne waaw lu tax ñu tuddee ko sab'ul mathani lu tax ñu tuddee ko sab'ul mathani ñu ne li tax ñu tuddee ko sab'ul nii mooy boo compter aaya yi juróom-ñaari aaya la ñu ne itam boo xoolee fatiha musul wàcc ci benn téere ci téere yi nga xamante ni jiitu neen ko ñu ne itam am na juróom-ñaari téere yoo xamante ni téere yu am valeur leen nee na presque ci leen eh, ci leen résumé fatiha juróom-ñaari téere yooyu mooy téere bi wàcc ci yonent yàlla Muusa mu di tawreet ak téere bi wàcc ci yonent yàlla isa mu di injil ak téere bi wàcc ci yonent yàlla daawuda mu di zabuur ak téere bi wàcc ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu di furqaan ak eh, suxuf yi nga xamante ni ñoo wàcc ci aadam muy suxufu aadam ak yi wàcc ci idris muy suxufu idris ak yi wàcc ci ibrahim muy suxufu ibrahim mu ne nag su fekkee jàng nga fatiha mu ne fokk nga am yoolu juróom-ñaari téere yi ñu ne nag limu juróom-ñaar yàlla daf ko mas dafa daf ko masa fonk ndax asamaan yàlla dogal na mu nekk juróom-ñaar suuf yi juróom-ñaar lanu ñu ne itam géej yi juróom-ñaar lanu ñu ne itam biddiw yi nga xamante ni ñoo gën a màgg ëpp doole ci biddiw yi juróom-ñaar ñu itam digal leen yonent bi sallallahu alayhi wa pour mu sujjóot ci juróom-ñaari cër kon nga xam ne yàlla ku fonk limu juróom-ñaar la kon fatiha itam bu ñëwee nekk juróom-ñaari aaya day wane itam ba tey ngëneelu fatiha jibril alayhi salaam wax na bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa muhammad kuntu axsha alcadaaba ala ummatik fa lamma nazalat fatixatu alkitaab amintu an laa yucadibahum allah qaala alayhi salaatu wassalaam lima yaa jibrilu qaala li anna allaha wacadaha lilmuznibin wa inna jahannama la mawciduhum ajmacin laha sabcatu abwaabin wa ayaatuha sabu man qara'aha saarat xijaaban ala baabi jahannam fa tamurru ummatuka salimin mu ne jibril alayhi salaam dafa waxoon yonente bi sallallahu alayhi yow muhammad man di doon naa tiit lool ci sa xeet ëllëg yàlla duma leen ndax téppéerloo goo xamante ni dañ téppéerloo nañ ko ci mooy yàlla ak nuur guñ ci nuur mu ne waaye bi nga xamante ni faatixatul kitaab wàcc na nee na ci la sama xel dal nag ma xam ne yàlla dootu leen bugal yonent bi sallallahu alayhi wax ko ne ko waaw yow jibril lu tax nga wax wax boobu lu tax nga ne bu faati bi faatixa wàccee la sa xel dal mu ne ko ndax mu ne ndax e, e, safaraw jahannama yàlla daf ko prépareel mooykat yi moo tax wax na ci alquran ne wa inna jahannama la mawiduhum ajmain mu itam te jahannama juróom-ñaari porte la mu ne ma xool ne faatixatul kitaab juróom-ñaari aaya la mu ne te itam xam naa ne juróom-ñaari aay yooyu ku ko jàng nee aaya yooyu ñooy nekk kiiraay ci sa ci buntu safara yooyu mu ne kon nag te xam naa ne sa xeet duñu dañ di jàng faatixa ci seeni julli ak ci lépp loo xamante ni rek daneen ci dugg faatixa leen koy ubbikoo mu ne kon looloo ma jox ne e, kon ñoom ak nu mu mënti demee rek daneen mucc ci safarawu jahannam mu ne wax na ni itam inna qaysara maliki ruum kataba ala umar ibn alxataab radiallahu anhu kitaaban wa kataba wa kataba fiihi inna najidu fi l injil anna man qaraa suratan xaaliyatan an sabcati axrufin fa lahu ljanna faqad talabnaha fi l injil fa lam najidha fanzuru hal tajidunaha fi kitaabikum qaysar bi nga xamante ni buur la woon ci romain yi bind na benn lettre omar ibnul xataab radiallahu anhu di ko wax ci biir lettre bi ne ko ñun gis nañu ci biir évangile ne képp koo xamante ni jàng nga saar boo xamante ni amul juróom-ñaari xaraf saar bi nga xamante ni amul juróom-ñaari xaraf wax ne ñu ci suñu injil nañu képp ku ko jàng nee na sa yaram dafay araam safara ñun nag seet nañu ko ci injil mais gisuñu ko léegi maa ngi leen di ñaan pour yéen ngeen seet ko ci seen téere boobu fekk na moom gëmagul waaye ubay bi bi Omar ibnul Xataab lii leere lettre bi dafa woo saxaaba yi ba mu ñëw mu wax leen ko ne leen daal Qaysar moo bind lettre bi léegi nag li ma bëgg moo di ñu seet ci biir alquran saar bi nga xamante ni amul juróom-ñaari xaraf léegi comme Ubay ibnu Kaab bokkoon na ci ñi nga xamante ni e, ñu ñoo daan bind yu bi bu mos alquran bu daan wàcc bokkoon na ci ñi ko daan bind nekkoon kaang itam nekkoon ci wetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom Ubay ibnu moo wax Omar ibnu Alxataab ne ko yaa amir inna alfatixata xaaliyatun an hadihi alxuruf mu ne ko yow amirul muminin maa lay yëgal ne fatixa amul juróom am na manqué na juróom-ñaari xaraf yoo xamante ni amu ko omar ibnu alxataab vérifié fatixa gisu ko ci mu bindaat buuru qaysar di rome boobu bind ko ne ko am nanu ko ndax fatixatul kitaab amul juróom-ñaari xaraf yooyu loolu moo convaincre buur bi ba tax mu tuub dugg ci lislaam ba ci lislaam la dee kon nga xam ne eh, fatihatul kitaab ndeke sax tuubloo na buur boo xamante ne chrétien la woon bu géeju woon ci eh, diine chrétien xam seen injil bi mokkal ko mën ko ci biir ak ci biti moom tuub na ndax secret bi nga xamante ni injil bi junj na ko ci biir fatiha mu mel ni xaraf yi nga xamante ni nag amul ci fatiha juróom-ñaari xaraf la moo di alfaau ak aljiimu ak athaau ak alwaau ak alxaau ak alzaayu juróom-ñaari xaraf yi amuñu ci fatihatul kitaab mu mel ni juróom-ñaari xaraf yooyu nag bëri na sax ñoo xamante ni dana amuñ ciy liggéey ci wàllu lasraar ci bëri danañu ko di faral di tëje suñu defee seen xaatim ba pare danañ ko ko faral di tëjee ndax secret bi nga xamante ni mu ngi ci biir mu mel ni kon fatihatul kitaab eh, ay secret jéggi na dayo ba wax na ne baatu alhamdu alhamdu baat bi rek nee na boo ko compté juróomi xaraf la alhamdu juróomi xaraf la ñu ne itam julli juróom yi julli yi juróom lañu julli yi ñu farataal ci nit juróom lañu moo tax su fekkente ni nit ki wax na alhamdu nee na yàlla dana ko bindal yoolu ku julli julli juróom ñu ne lillaahi ñetti xaraf la ñu ne boo boolee ñetti xarafu lillaahi ak juróomi xarafu alhamdu nee na da am juróom-ñetti xaraf nee na te bunti àjjana yi juróom-ñetti bunt la kon képp koo xamante ni wax nga alhamdulillahi ëllëg da nga dugg àjjana ci bunt bala la soob te kenn du la regle kenn du la mbugal ñu ni ne rabbil aalamiina ñu ne boo compté xaraf yi lettre yi nekk na dix xaraf nee na boo jëlee nag dix xarafu rabbil aalamiina boole koog huit huitu alhamdulilahi nee na dana nekk fukki xaraf ak juróom-ñett mu di xaraf dix-huit itam te monde yi nga xamante ni am nañu monde yi yàlla bind nekk neen fukki junniy monde ak juróom-ñett moo tax su nit ki waxee alhamdulilahi rabbil aalamiin yàlla daf koy bindal yoolu monde yooyu yépp la fa nekk ci ay mbindeef di jaamu seen boroom jaamu ga yool ba leen ci yàlla di jox yow mi wax alhamdulilahi rabbil alamin yàlla dana la jox yool boobu ñu ne ki wax yi ñu ne baatu arrahmaan nee na boo compté lettres yi nekk na six lettres ñu ne boo boolee six lettres yooyu ak nee na boo boolee six lettres yooyu ak 18 yële dana nekk vingt 24 24 lettres ñu ne 24 lettres yooyu mooy tolloog ñaar fukki waxtu yi am ak ñeent ndax waxtu yépp ñaar fukki waxtu la ak ñeent waxtu guddi yi ak boo ko compté ñaar fukki waxtu la ak ñeent kon ki wax alhamdulillahi rabbil alamina arrahmani kooku yàlla dana ko bindal yoolu waxtu guddi yi ak bëccëg yi arrahim yi itam wax na ne juróomi lettre la boo boolee juróomi lettre arrahim yi nga boole ko ak ñaar fukki lettre ak ñeent yi weesu dana la jox fanweeri la fanweeri xaraf ñu ne itam yàlla bind na weeru koor mu gën ci weer yi te weeru koor nekk fanweeri fan ñu ne kon képp koo xamante ni wax nga alhamdulillahi rabbil aalamiina arrahmaani rahiimi yàlla dana la jox yoolu jullit bu dëgg bu woor weeru koor ci woor gu sell gu mucc ayib yàlla fay ko yool boobu yàlla dana la ko fay yow mi wax alhamdulillahi rabbil aalamiina arrahmaani mi ñu ne maaliki yawmi diini maaliki yawmi diini nee neen boo compté lettres yi fukk la ak ñaar moo tax ñu ne kon boo boolee fukki lettre yooyu ak ñaar nga boole ko ak fanweeri lettre yi njëkk nee na danga am ñeen fukki lettre ak ñaar ñu ne itam yàlla dogal na e, julli farata yi boo leen boolee ak julli witar ci bis bu nekk nee na dana nekk ñaar fukki lettre mu ne itam ñaar fukki rakka mu ne itam te rakka sunnay sunnatu rawaati bi nga boole ko nga boole ci ñaari rakkay yoor yoor yi nee na dana àgg dana mat ñeen fukki rakka ak ñaar moo tax bu jaam bi waxee alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi diin yàlla dana ko bindal yoolu rakkaa yi ñu fi yépp ñu ne itam soo waxee iyyaka na'budu nee na iyyaka na'budu fukki lettre la ak juróom-ñett 18 lettre la nee su fekkente ni nag boole nga 18 lettres yi ak 42 yële nee na da am juróom fukki lettre nee na te yàlla bind na e ëllëg bisu yowmal xiyaam ba dana tollook juróom fukki junniy at ci suñuy at ñun juróom fukki junniy at ci suñuy at ndax kaanam kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana kon bu fekkente ne jaam bi jàng na wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin na naabudu mu ne kon yàlla dana ko defal sécurité ëllëg ci tiit gi nga xamante ni jaam yi danañ ko tiit ci bis penc ba ndax bis la boo xamante ni bis bu garaaw la ñépp la seen fit di rëcc ba des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne kon képp koo xamante ni jàng nga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahimi maliki yawmi ddin iyyaka na'budu yàlla dana la defal ak wóolu ak sécurité boo xamante ni ëllëg doo bokk ci ñuy tiit ca gisu atte ba ñu ne wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in ñu ne fukki xaraf la ak benn fukki xaraf yooyu ak benn soo ko boolee ak e, juróom fukki xaraf yooyu weesu da nga am juróom benn juróom benn fukki xaraf ak benn muy 61 xaraf 61 lettres mu ne ci géej yi nga xamante ni ñoo nekk ci asamaan ak suuf nee na ñoom nekk nañu e, juróom benn fukk ak benn juróom benn fukk ak benn ci ay géej moo tax su fekkente ne jaam bi wax na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahimi maliki yawmi ddin iyaaka naabudu wa iyaaka nastain yàlla dana ko jox yoolu toqi ndoxu géej yooyu yooyu la ko yàlla di fay ci yool kon e, ba tey ngëneelu fatiha mu ngi gën di dolleeku bu fekkee jaam bi wax na dina siraat al mustaqim ñu ne ihdina siraatal mustaqim boo compté lettres yi 19 la fukk la ak juróom-ñeent su fekkente ni fukk yooyu ak juróom-ñeent boole nga ko ak e, juróom benn fukk bële ak benn nee na da nga am e, juróom fukk yu manquéwul dara ñu ne nag e, nit ki su fekkee dafa xas moroomu gorom xas ko teg ci deram lu ñaaw wala mu naan sàngara nee na lañ ko waroon a duma mooy li ko pen bi ko lislaam teg mooy nañ ko dóor juróom-ñett fukki yar mu ne kon su fekkente ne wax nga alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraat almustaqim soo waxee loolu daneen la jox maanaam daneen la jéggal bakkaaru ku xason gor wala nga naan sàngara ñu ni su fekkente ne wax nga siraat alladina anamta alayhim nee na boo compté lettres yi moom itam 19 la bu fekkee jël nga 19 yooyu fukki ak nga boole ko ak eh, juróom-ñett fukk yële mu di 80 yi mu ne kon da am 99 soo amee 99 xaraf turu yàlla yi fa inna asmaa allahi taala kullaha fi lquran tisaatun wa isman mu ni turu yàlla yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir alquran nee neen e, la benn ba nag dañu ko nëbb moom lañuy wax ne mooy ismullahil azam wax yi bari na ci waaye daal liñ la mën a wax moo di ki wax daal siraat alladina anamta alayhim am na fukki xaraf ak juróom-ñeent fukki xaraf ak juróom-ñeent yooyu boo ko boolee ak 80 yële dana maliki yawmi ddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain ihdina siraata almustaqim siraata alladina anamta alayhim ñu ne yàlla dana ko bindal yoolu turam yu sell yooyu yépp ñu ne boo waxee gayril maxdubi alayhim wala daalin nee na boo compté lettres yi fukk la ak juróom soo boolee nag fukk ak juróom yooyu nga boole ko ak 99 yële dalay jox 114 mu ne saar yi ci biir alquran yépp téeméer lanu ak fukk ak ñeent 114 leen moo tax bu fekkente ni nit ki jàng na fatiha ba ci xayril maxdubi alayhim wala dallin neen yàlla dana ko jox yoolu saar yi ci alquran yépp mel ni ku jàngoon kaamil bi ba jeexal ko ñu ne wala dallin boo compté lettres yi nekk na 10 fukki lettres la mu ne bu fekkente ni nag 10 lettres yooyu di wala dallin da nga ko boole ak 114 yële dana la jox 124 mu ne moo tax mu ne e, yonent yi maanaam anbiya u ñoom seen lim nekk na 124 000 124 000 ay yonent yoo xamante ni ay anbiya u leen àgg nañ ci 124000 kon ki nga xamante ni jàng na fatiha ba ci wala daalin nee na dana am yoolu yonent yooyu nga xamante ni yàlla yónni na leen moo di anbiya u yi dana am seen yool ñu di 124000 ay anbiya mu mel ni kon fatiha daal ndeke dara niilu ci lépp ngëneel la ñu ne itam waaw aaya yi nga xamante ni mu ngi ci biir fatiha am na ñu ci boole bismillahi rahmaani rahim waaye am na ñu ko ci seppi am na ñu ne e fatiha mu ngi commencé ci alhamdulilahi rabil alamin ndax bismillahi rahmaani rahim bokk ci mu ngi commencé ci alhamdulilahi rabil alamin waaye ñooñu siraat allazina an'amta alayhim dañ ko lim comme aaya su fekkee nag ñi ci boole bismillahi rahmaani rahim la bu fekkee ñi ko ci boole la ñoom dañuy jàpp ne siraatal ladina an'amta alayhim gayri maxdubi alayhim wala daanil loolu moom loolu moom mooy benn aaya bi kon su fekkente ni ñi kontewul bismillahi rahmaani eh, bismillahi rahmaani rahim ne bokkul ci fatiha ñooñu dañ naan lii mooy fatiha da nga naan alhamdulilahi rabil alamin mu di benn aaya arrahmaani rahim mu di ñaari aaya maliki yawmi mu di ñetteelu aaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain mu di ñeenteelu aaya ihdina siraata almustaqim mu di juróomi aaya siraata allazina anamta alayhim mu di juróom benn xayril maxdubi alayhim nekk juróom ñaar am ñi limaale nag bismillahi rahmaani rahim ñoom dañu ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim na iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina siraat almustaqim siraat alladina ancamta calayhim gayri al calayhim wala daalliin amin loolu moo di fatixa ci ñi nga xamante ni boole nañ ci bismillahi rahmaani rahim ñu ne itam xaraf yi wuute nañ ci am na ñu wax ne xaraf yi fatixa nekk na téeméer ak ñaar fukk ak juróom am ñu ne téeméer ak ñaar fukk ñett am ñu ne téeméer ak fanweer waaye seen wuute mu ngi aju rek ci mbindin bi ak jàngin bi te ku ne dégg na ne faati eh, alquran am na juróom-ñaari jàngin ñu ne jële nañ ci lenn ni ndongo mu di ay taalibe ñu jële ci seen sëriñ ñu ne ñoom de am na benn feebar boo xamante ni feebaru mbas la feebar bu eh, doy waar moo xewoon ci seen dëkk nee na ñu amoon nag benn sëriñ bu ñu tuddee tamim yi nee na bi nga xam ne feebar bi dem na bay faagaagal dëkk bi nee na dafa digal nag ay taalibeem ne leen e, malaat bu nekk ci malaat yi na ngeen dem ci moom ngeen jàng fa fatiha te bu ngeen koy jàng na ngeen na ngeen ci boole bismillahi rahmaani rahim te bismillahi rahmaani rahim bi bu leen ko tàqaleeg alhamdulilah gi maanaam boo boo boo dee jàng saar wi da nga naan bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mu ne bu ngeen ko jàngee tafli ko ci kaw ñi feebar yàlla dana leen defal ak wér te taalibe yi nee neen ñoom ba ñu jàngee ñaan gi de yàlla def na ci sutura dañoo daal di wér moo tax wax nañ ne wa man qara'aha maa wasli al basmala ala al marid ihda wa marra shafaahu llah mu ne képp koo xamante ni jàng nga fatiha nga taqale koog bismillahi rahmaani rahim nga jàngal ko aji feebar nga jàngal ko ko ñeen fukki yoon ak benn tafli ko ci kawam nee na yàlla dana ko may wir su fekkente ne feebarul feebaru dee ñu ne waman daawama ala qiraati alfatiha maa albasmala bayna sunnati subh wa fardihi ixda wa arbaina lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kaana faqiran agnaahu allah wa in kaana madyunan qada allahu anhu dayn wa in kaana maridan shafaahu llahu sariican wa kaana maxbuuban cinda alcaalam alculwi walsufli wa kaana masmuuca alqawl wa maqbuula alficl wa muhaaban cinda caduwihi wa maxbuuban cinda muxibihi wa lam yazal fi amnin ñu ne képp koo xam ne sax nga ci jàng fatixa di ko taqaleeg bismillahi rahmaani rahim ci diggante bi nga jullee sa ñaari rakaa fajar ak fa ngay jullee suba diggante boobu nga jàng fa lu tollook ñeen fukki bismillahi eh, ñeen fukki alhamdulilahi rabil alamin ak benn nee na nee na daraja joo mënti wut place boo mënti wut danga ko am ci kàttanu yàlla nee na itam boo bu fekkee da nga ñàkkoon yàlla mën na la may ak koom nee na bu fekkee da nga amoon bor boo fay yàlla mën na la dimbali nga fay ko nee na boo feebaree itam yàlla mën na la saafara ca feebar ba ci saafara bu gaaw nee itam bu fekkente ne itam E yaa ngi koy jàng nee na ñooñ kaw ak ñooñ suuf ñëpp dañ lay bëgg lépp luy xeetu malaaka daf lay bëgg nit ñi nga nekkal itam fii ci àdduna bi dañu lay bëgg nee na itam sa kàddu kàddu gu ñuy ormal la gu ñuy dégg lay nekk nee na itam say jëf lu ñuy nangu la boo defee rek ñu ne iskay nee na itam say noon dañu lay ormal respecté la nee na itam say soppe dañ lay gën a bëgg nee na doo dañ itam di nekk ci sécurité yàlla nee na fekk yaa ngi saxaw jàng dog bi mu lay wax ci waxtu wi nga xamante ni moo di waxtu suba mu ne képp koo xam ne folli nen la ci barab te nga bëgg faa dellu nee na ñu ngi lay digal pour nga saxoo di jàng suratul fatiha ci lim bi te moo di ñeen fukk ak benn nga jàng ko itam ci diggante bi nga jullee sa ñaar raaka fajar ak suba fi ngay jullee suba nga def ko nag e, lu tolloog ñeen fukki fan ci lu dul nag nga bàyyi benn benn benn benn benn espace wala nga ciy wàññi dara nee na lii daal soo ko dee saxoo di ko def sax yàlla mën na laa may doom ju yiw joo xamante ni ñépp koy bëgg ñépp koy ormal ñu ne jële neen ci anas radiallahu anhu mu ne nit ki su demee bay tëdd ci lalam nee na mën naa jàng fatihatul kitaab jàng qul huwallahu ahad nee na mu jàng ko nag ñetti yoon jàng itam ñaari musluwaay yi te moo di qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi naas neneen daal ku jàng loolu ci sa jam waxtu wi ngay tëdd nee na yàlla defal na la sécurité dara du la laal dara du la gaañ boo tëddoon ci àll boo xamante ni ay gaynde kese ñoo fa nekk àll bu lëndëm itam nga tari lii tëdd fa yàlla dana la sàmm ba dara du la fa laal ñu ne faatixatul kitaab am na ay ngëneel ndax nee neen faatixa dafay dalal merum yàlla nee na soo dee jàng faatixa day tax yàlla du la mën a mere daf lay bëgg toujours nee na yaasin suuratu yaasin ngay jàng yaasin nee na day tax ëllëg yowmal xiyaam nan nit ña di maree ndax tàngoor baak ni malaaka yi di pamti pamte nit ñi di leen sonal ci bisu regle ba ba nga xamante ni ñépp ay mar nee neen bu fekkee saxoo fii di jàng yaasin nee ne ëllëg yowmal xiyaam doo fa yëg mar nee na suuratu duxaan benn saar la ci alquran nee na ëllëg tiit bi nit ñi di tiit yowmal xiyaam ba ku nekk di rappi rappi ba way jur bu jubee bu doom jubee way juram way juram daw ko ne ko musuma laa jur xawma la ndax jaaxleeg tiit nee neen boo dee jàng suuratu doxaan ëllëg doo tiit googu nee na du la dal nit ku tabarkàlla ngay nekk ku nit ku pesé ngay nekk koo xamante ni day mel ni sax eh, yëguloo li xew mu ne nag suuratul waaqia mu di isa waqaatil waaqia mu ne boo ko dee jàng day tax doo ñàkk day tax itam du umu nee na itam suuratul mulki muy tabaarakal ladi bi yadihil mulk nee na soo ko dee jàng day tax mbugalum bàmmeel doo ci xam dara doo am mbugalum bàmmeel malaaka yi ñëw bu ñu suulee nit ki ba noppi ba dëdd malaaka yi ñëw di laaj néew bi di ko sonal te malaaka yooyu nekk ay fitna nee na boo dee jàng suratul mulki malaaka yooyu doo leen gis nee na suratul kawthara maanaam inna aatayna inna aataynaaka al kawthar fa salli li rabbika wanhar inna shaani aka huwa labtar ñu ne boo ko dee jàng day tax ëllëg yomal xiyaam ñuy xuloo kenn ku ci nekk naan def yaa defoon nangam kii naan yaa defoon nangam ñuy weerante ku xamal sa moroom lu ñaaw wax ko mu nekk bisu weerante weerante ak weerante ak xuloo bisub jëppante ak bañante ndax e, bis la boo xamante ni bisu fitna la nee na boo dee jàng suratul kawsar nee na xuloo boobu yàlla daf la ciy seppi teg la fële doo ca bokk nee na képp koo xam ne yaa ngi jàng qul yaa ayyuhal nee na day tax sax day tax e, doo weddi yàlla te itam e, danga nga dee ci liimaan waaw ay yaa ayyuhal kaafiruun am na sax ñu ne naafeq du ko mokkal waaye daal saar la boo xamante ni soo ko dee jàng moom foog nga dee ci liimaan te itam li nit war a ñaan rek mooy dee ci liimaan ndax yonent bi sallallahu alayhi nee na bu nit jëf lu baax ba naw ko bu nit itam nekk ci lu bon ba naagu yaakaar ne nitu safara la loo nekk ci lu bon bon lu mu bon bon bon bis boo nangoo tuub génn ca keroog la ca yàlla di génn ba set ci wicc jéggal la yërëm la baal la ba mel ni mësuloo def benn bàkkaar képp koo xamante ni nag jàpp nga ne mas ngaa defal yàlla dara ba naw ci sa jëf lu la nga def lu mu bari bari donte téeméeri at nga ko saxoo jaamu xëy benn bés rek gis sa bopp ci jaamu ga yàlla soxlaatul ca la nga def dara te loolu moo dal iblis moo moo tax dee ci liimaan lu nit ñi di war di ñaan la moo tax ñuy wax ne nit ki dafa war a nekk baynal xaw wa raja suratul ixlaas mu di qul huwallahu ahad ñu ne boo ko day jàng day tax sa xol du am nafiq ak naafiq du nekk ci sa xol te dañu wax ne eh, naafiq yi ëllëg yomal xiyaam ñooy gën a bon sax daraja ñooy gën a bon daraja yéeféer yi nga xamante ni dañoo bañ yonent bi ba jàkkaarlook moom ne ko bëgguñu la ndax naafiq moom dañ ne ku ko rey rey jullit ku ko bàyyi bàyyi yéeféer ñu ne nag képp koy jàng lixlaas ñu ne sa xol dana mucc ci ak naafiq képp koo xam ne yaa ngi jàng suratul falaq maanaam xula auzu bi rabbil falaq neena yàlla dana la musal nee na ci pexeem ñu añaan ñi ñi lay añaane di la fexeel bis bu nekk pour yàqal la soo dee jàng suuratul falaq yàlla dana la musal ci seen pexe ñu ne itam képp koo xam ne yaa ngi jàng suratul naas mu ne qul a'uuzu bi rabbin naas nee na jax-jaxaluk seytaane bi nga xamante ni dañul di digal nit ñi lu bon nee na danga ca mucc ñu ne bokk na ci jagle yi nga xamante ni faatiha am na ko mu ne day ubbi buntu yiw yi moom faatiha mu ne kon benn dog a ngi nii boo xamante ni nit ñi mën nañ koy jëfandikoo pour yàlla mën leen ubbil seeni buntu yiw mu ne képp koo xam ne bëgg nga say bunt yiw ubbeeku nee na na nga fexe ba bu weer wi deewee nga xamante ni maanaam bu weer wi teroo ci weer wu bees wi nga xamante ni weer wi teru na nee na nga commencé nag ca dimanche ja ci njëkk ngay commencé jàng faatixa nga taqale ko ak bismillahi rahmaani rahim ca dimanche ja boo ko dee jàng nag na nga ko jàng juróom-ñaar fukki yoon muy 70 fois bisu altine ba bu ñëwee 70 yi da nga ciy wàññi fukk nga jàng ko juróom benn fukk maanaam sitti na maraat ci bisu altine kon boo jàngee faatixa ci bisu dimanche ci dimanche bi njëkk ci weer wi nga jàng ca juróom-ñaar fukki faatixa altine ja yaa ngi jàng juróom benn fukk talaata talaata ja bu ñëwee yaa ngi jàng juróom fukk àllarba ja bu ñëwee nga jàng ñeen fukk bu alxames ja ñëwee nga jàng fanweer su ajjuma ja ñëwee nga jàng ñaar fukk su samedi ja ñëwee nga jàng fukk lii su fekkente ni def nga ko yàlla mën na la ubbil ay buntu yiw ci dog bi nga xamante ni joxe nañ ko ñu ne itam boo boolee yii mu fi wax yépp soo leen boolee dana nekk téeméer ñu ne kon nag téeméer boobu képp koo xam ne sax nga di ko jàng par njël bu njël jotee nga jàng téeméeri fatiha ci waxtu njël nee na itam dana tax yàlla yombal sa wërsëg te itam sa yëpp sa mbir yëpp mën nañuy dox te doo am benn coono mu ne képp koo xamante ni itam bëgg nga mu nekk beneen dog boo xamante ni itam dañu ko jëfandikoo pour mën a ubbi buntu wërsëg yi ak itam mën a jàppandal yi nga xamante ni dafa jafe woon mu ne képp koo xamante ni bëgg nga yàlla ubbil la buntu yiw yi fattal la buntu ay yi nee na na ngay jàng faatixa ci limu yonent yi yonent yi nag 313 lanu kon jàng faatixa ci limu 313 baax na am na sax ñu ne jàng ko junni yoon maanaam nga fexe ba bis bu nekk nga jàng junni faatiha bu fekkee mënuloo ko nga junni bi nga séddale ko ci ñetti fan wala nga séddale ko ci juróomi fan wala nga séddale ko ci juróom-ñaari fan mu ne incha allah lu dugg rek yàlla dana la ci defal eh, ak jàpp ndal mu ne nag à condition que boo koy jàng nga yor njàpp soo koy jàng itam nga jublu la te itam boo toogee bay jàng dog bi itam bu la dara empêché bul wax ak jabar bul wax ak doom bul wax ak kenn da ngay toog jàng ko noonu rek mu ne itam bokk na ci njariñu fatiha ñu képp koo xam ne sax jël nga koton bu fekkee da nga am dañ la jam wala ñu gaañ la mu nekk nàcc-nàcc nga jël benn coton jàng ci fatiha juróom-ñaari yoon tafli ko ci taf ko ci gómb yàlla fa la koy yemale day wér waaye du du garaaw mukk loolu itam e jag ak jagle la goo xamante ni mu ngi ci biir fatiha ñu na beneen dog boo xamante ni itam mu ngi nii ci fatiha mën neen mën nañ koo jëfandikoo mu ne fatiha daneen ko jàng ci ginnaaw boo jullee suba ba pare mën nga ko jàng fanweeri yoon soo jullee tisbaar ba pare mën nga koy jàng ñaar fukki yoon ak juróom soo jullee tàkkusaan ba pare mën nga koy jàng ñaar fukk su eh, yaa ngi sax ci jàng fatiha ci ginnaaw julli gu nekk nga jàng ko téeméeri yoon nee na loolu moom dafa gaaw lool ci faj aaju ñu ne itam di ko jàng ci ginnaaw jullik suba nga jàng ko ci xarafam yi 125 125 nga jàng ko ci xarafam yi nee na itam yàlla dana la dimbali ci say aajo ñu ne jële neen ci cheikh muhyiddin ibnu arabi qaddasallahu sirrahu man kaanat lahu xaaja fal yaqra fatixat alkitab bacda salaati almaghrib mu ne jële neen ci a cheikh muhyiddin ibnu arabi yàlla na yàlla sellal mbootam mu ne képp koo xamante ni am na aajo mën nay jàng faatixatul kitaab ginnaaw bu ñu jullee timis ba pare ginnaaw bi mu defee naafilaam ba pare mu jàng ko nag ci dogu ñeen fukk nee na boo ko jàngee ci dogu ñeen fukk yàlla dana yombal say bëgg-bëgg ñu ne itam faatixa léeg-léeg dana nekk kiis mu ne ndax képp koo xam ne jàng nga faatixa ci njàpp nga jàng ko juróom-ñaari fan fan bu ci nekk nga jàng ko ci juróom-ñaar fukki yoon nee na nga tafli ko ci ndox mu laab nee na nga naan ko nee na loolu mën na yokk sa wërsëg mën na yokk sa xam-xam nee na itam dana dana di jur ci nit ki du gaaw a fàtte ndax e, kon dafa mel ni e, dog bi moom baax na ci képp koo xamante ni xam-xam sa yitte la mu mel ni wax na ne dogu ñeen fukk bi képp koo xamante ni am nga mbokk mu tukki nga ko koy jàngal dana dellusi ak jàmm ñu ne itam képp koo xamante ni am na métit ci bëtam wala mu am métit ci bëñam mu faral di jàng itam saar bi nee na itam yàlla dana ko ci defal sutura ci métit boobu ba yàlla mën na ci def sutura du àgg foo xamante ni mën na ko dépasser mu mel ni saar bi dafa ubbeekoo benn xaraf bu am solo mu di baatu alhamdu te alhamdu di cant goo xamante ni kenn xamul na mu toll ndax xéewal yi nga xamante ni yàlla defal na ko jaam bi ci wàllu wér-gu-yaramam ak jàmm ji mu am ci biir këram am ko ci njabootam ak itam xel mi mu def ci moom ak valeur yi mu def ci moom yépp suñ ko xayma woon nit ki mënu koo fay boroomam te itam nit jaaxle na ci naka la mën a delloo njukkal boroomam ndax lu mu yëkkati rek pour jox ko boroomam xeeb ko ndax amul dara lu nit mën a yëkkati jox ko yàlla loolu tollook li yàlla def ci moom ci ay valeur amul foofu nit jaaxle fi yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko soo waxee alhamdulillahi rabbil alamin mu ne dana tollook li ma la defal ciy teraanga kon loolu ba tey day wane ak mbaaxuk yàlla ci ñun ndax e alhamdulilahi rabbil alamin yàlla moo ñu ko jox xéewal yi itam moo ñu ko jox kon lépp day dellu ci moom kon alhamdu mbooleem darajay cant ak la ca làmb ci ay ngëneel ak xéewal yépp lillaahi yàlla moom moo ko moom mu mel ni itam e baatuk cant yàlla daf ko fonk nit ki fokk muy sant boromam fokk itam ngay sant say moromu nit parce que itam yàlla wàccagul fii ci àdduna fajal kenn soxlaam lu ne rek daf ko wutal eh, ab wutal ko intermédiaire wut itam fu mu koy jaarale comme ay xéewalam dafa am fu mu koy jaarale xéewal yi foofu ko yàlla di jaarale foofu itam la ñu bëgg cant gi doore fa commencé foofu moo tax ñu ne yàlla bëgg na lool su defalee xeewal jaamam jaam bi sant ko ba tax na wax na moom yàlla ne xool leen sama jaam bale moom dem may naa ko may goo xamante ni kenn mënul dab xaymaam nee na moom itam mu jox ma valeur boo xamante ni kenn mënul dab xaymaam te mooy yàlla dafa defal jaam bi xéewal jaam bi itam daal di sant yàlla cant goo xamante ni amul benn cant boo xamante ni tolloo moom kon mbokk yi fatihatul kitaab xaajagul bay jeex dañ ci wax tuuti liñ ci bàyyi moom mu ëpp wante itam comme waxtu wi dafa jeex du ñu mën rek lu dul bàyyi suñu mbokk al imaam Moussa Gueye e mu dugg si waxtaan ak yéen seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdullahi Diop incha allah ajuma bi di ñëw danañu dugg ak yéen ci e, waxtaanu yonent yàlla Muusa alayhi salaam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني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 mbokk yi gis ngeen ne alquran moo di téere bi nga xamante ni moo di dusturul muslimin di constitution jullit ñi lépp lu jullit di wut mu ngi ci biir alquran kon jullit warul jéggi alquran di jéggani feneen moo tax ñu wax ne fa inna alquran alazim fi gaayati tabaqaati alfasaxati walbalaaga wa aqsa darajaati alcudma wa acla nihayati li qawlihi tacaala afala yatadabbaruuna alquran walaw kaana min cindi gayri illahi la wajaduu fiihi ixtilaafan kaciira wa li qawlihi tacaala qul la in ijtamacat alinsu waljinnu cala an yaatuu bimithli hada alquran laa ya'tuuna bimithlihi walaw kaana bacduhum li bacdin dahiira gis nañ ne alquran moo féete lépp kaw gis nañ ni fasaa gi alquran am benn wax amuk gis nañ ne itam balaaxa bi nekk ci alquran wax bu jot wax bu jekk wax bu yiw wax bu matale lépp gis nañ ne ci alquran rekk la ne gis ne ni itam daraja ji mu am ba léegi gisuñu ci wàllu wax daraja bu ni toll fa mu yegg itam benn wax yeggewu fa moo tax yàlla di wax jullit ñi naan leen afalaa yatadabbaruuna alquraan yow yonent bi waxal jullit ñi xanaa ñoom settantaluñu alquraan mu waxaat ci beneen aaya ni su fekkoonte ni jinne yi ak nit ñi dañu dajaloo woon di dimbalante pour ñu jéem wut téere bu mel ni alquran wala bu ko xaw niru mu ne duñu ko mën donte sax def nañ ci seen kemtalayu kàttan kon yàlla lancé na yi jëm ci bépp waxkat jëm ci bépp pànk mu nga xamante ni taxaw na pour opposer alquran di wane xam-xamam di wone balaaxaam di wane fasaxaam yàlla nee na kuy jinne yaag punkali seytaane yaag fóore yaag boroom xam-xam yi ngeen na ak ñépp bu ñu dajaloo woon doon dimbalante duñu indi lu mel ni benn xaraf ci alquran kon gis ne ne alquran nekk na fi ala al maratib wa acdami al fawaid wa axsani al lataif wa akmali al xafaaya wa afdali al xasaais wa akthari al manafic wa abha al madaaya moo tax wala yantahi axadun ila kunhi asraarihi al cajiba wa macaanihi al cadida wa fawaidihi al kathira wa fadailihi al cadima ñu ne alxuraan mu ngi ci ay martaba yu rëy noonu itam la lamboo ay njëriñ yu bari noonu itam la ci yàlla laxasee ak jàppandal mu di wax bu ñeewant wax boo xam ne boo ko dee wax te fekk ngëm a ngi ci yow dangay gis ni muy jeexitalee ci sa xol dangay gis ni muy jeexitale ci sa yaram dangay gis itam ni léeg-léeg dana la jooyloo ndax waxin yu jëkk ya ak waaraate yu yiw ya ak la ca nekk ci njëriñ ak kéemtaan kon daal may yi nekk ci alxuraan nekkul fenn ndax mooy waxu borom bi moo tax kon la ca laqatu ak la ca lëmasu ak lañ ca ndëxañ ci secret kenn mënu koo jeexal la ca nekk itam ci ay maana limu na bari na njariñ ya itam bari na ngëneel ya itam bari na loolu tax yàlla wax ci alxuraan ne qul law kaana albaxru midaadan li kalimaati rabbi la nafida albaxru qabla an tanfadda kalimaatu rabbi walaw jinaa bi mithlihi madada mu waxaat ni walaw annama fi l ardi min shajaratin aqlaamun walbaxru yamudduhu min bacdihi sabcatu abxurin maa nafidat kalimaatu llah mu ne yàlla wax na ci alquraan ni su fekkonte ni géej gi dafa nekkoon di daa di encre bu fekkonte ni géej gi dafa nekk encre li fi nekk ci garab yépp nekk ay plume nekk xalima nee na ñu bëgg bind mbóot yi lëmasu ci biir alquran nee na danañu bind ba géej ya ñu bind ba xalima yépp damm te itam lañu bind azaka la ca la des kon nga xam ni kon alquran ay secretam bari na ay secretam itam rëy na moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tollook téeméeri saar ak fukk ak ñeent am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett waaye ñooñu dañu boole suuratul lanfaal ak baraa mu di benn saar waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran ëpp ci njariñ ëpp ci daraja saar yu ci gën a rëy ci alquran ëpp ci daraja moo di faatixatul kitaab ak suuratul ixlaas waaw ña wax loolu nag moo di al ulamaa al muhaqiqin min al a'immati al a'laam waaw boroom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitaab ak suuratul ixlaas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne